El Hadji Ahmed Aidara bismillah cay dossier Khalifa Sall bi lé termine yéene kaay ne pourvoi en cassation ba day waaw Khalifa Sall day Cour suprême joxu ko dëgg de mardi dali l'observateur de waaw ka xam ne moom moo fi nekkoon maire de Dakar day waaw daanaka sax kon jëlee nañ ko ci élection présidentielle yi du ca bokk mardi dali laas de déet amul daanaka Khalifa Sall kay waaw dama ne la mën naa nekk candidat ndaxte nag ñàkkul ak ay yelleefam de déedéet ay droit civique candidature ngaa ngi nii lée raba dara maa la ko wax maître Seydou Diagne ne dama ne Khalifa Sall ne mën naa nekk candidat ci élection présidentielle yi laa la wax maître Baboucar Cissé avocat nguur gi la ne déedéet Khalifa Sall kay bokkatul les ko yéene kaa ne moo taxit Cour suprême googee waaw yekk nañ ko lu ni xamee daal di koy yuuxoo maître Borso Pouy ah nee na lii bettu ñu ne déedéet waaye Khalifa Sall ngeeg ay sansam day ngir nekk candidat ci élection dañ leen moom day fo ndaxte ndekete 28433 kese parrain waaw la déposé ak Moustapha Mbacké Diop waaw ñooñee moom fichier yi ñuy joxe tey kenn da mënul tëg bët sax inexploitable ay dëmbooj ñàkk lu tolloog 50 000 parrain ay satatal sal day 46 waay laas de bugaan géej dani day waaw daal dinay déposé ab recours bàyyeegul de ba noppi nee ne nag dana porter plainte ak alaxam x waaw yéene kaay ne xam ne kon moom la Bougane Gueye Dany kon déposé conseil constitutionnel gay ay kilifa yi nekk ca ga ñoo ko doon copié ñu leen di ger ay doublon yoo xam ne kon moom la conseil constitutionnel day daal xam ne nag ci signature yi xam ne kon moom la waa gëm sa bopp googee déposé ay responsable lu gëm nekk ci région yi ko def uh-huh. maa la wax li tribune yéene kaay ne en day waaw d'accordul benn yoon ci éliminé bi nga ko koy conseil boo xam ne waaye 20724 kese lañ na ñoo baax doublon yi ak ne kon nañu koo rejeté définitif nañu kon mënu koo changé mais loolu kay mooy wane ne yow bokkatoo bugaan ngay xam ne kon nañu koo rejeté day waaw ci ay sénégalais yu bari yoo xam ne waa conseil constitutionnel day dañ ñoo xamal ni ñii nekkuñu ay électeur yaa jum wala maa jum bugaan ngay dani lii la waa conseil constitutionnel te xam nga lan moo ca gën a doy waar ñoo ngeeg seen numéro carte électeur seen numéro carte d'identité CEDEAO ba nuppi ñu ne ñu ñooñee nekkuñu ay électeur muy lu doy waar moo tax man nag daal dinay sàkku kon ci sénégalais yooyee ne leen organiser wu leen yóbbu leen nguuru Sénégal gi wala waa conseil constitutionnel fa ma xam ne ne kebeer kese ñoo leen bëgg xañ seen ak ak seenuk yelleef seen droit de vote ne leen doo leen voté li luy ndeem jiital kam sa bopp ci tribune yéen kaay nga bu ñu demee sax ba conseil constitutionnel googee waaw di maltraité ay candidat ay nit yoo xam ne dañoo dem kon bay laaj réew mi ay présidentiable nga leen di soofantal conseil constitutionnel waaw war na ñoo jéem di respecté candidat yi loolay dëgg libération yi ne kaa ne candidat Idrissa Seck ak Alaaji Malick Gakou ak maître Madické Niang yi waaw tey lañ leen wax ñu dem nag moo tali liñ manqué le ne tey lañ leen di xaar kon waaye Alaaji mooy 8888 parrain te alaaji lu tolloo ñeen fukki junni 40 000 parrain Dakar gis nga wàllu parrainage googee waaw tey ma wax leen waa daaf nan la naxee waa conseil constitutionnel waa daaf dañoo piégé waa conseil constitutionnel parce que leen format papier bu fichier bi déedéet numérique ba rek lañ leen jox réew mi quotidien ne Idrissa Seck day cinquième président lii la journal bi laaj 1 3 15 45 la idi ak ña àndal te Vox Populi ne mënul jiite menuisier ba lay jël ne ko defaral ma kër jël maçon ba ne ko daajal ma lal Abdourahmane waa ji xam ne kon Macky Sall da ko signé ci pétrole bi day bu Idrissa Seck gagné ko audité waaw waaw exclusive yéene kaay ne la révolution kay mooy maître Madické Niang ah waaw maître Madické Niang ci laa jël damaa jël ay risque de parce que nag xel dafa mënul sax nag jàpp Abdoulaye Wade rek li mu def ci réew mi lée te ki ko war a am ne ndoonnuk moo koy yegali maître Madické Niang ne te réew mi nag boo leen bëggee dégg dëgg day fi mu nekk nii lépp farata la lépp farata la laa la wax urgence parce que Macky Sall mi lee ay problème kese la fi bàyyi waaye maître Madické Niang day war naa leeral dossier Karim Wade bi di ak Karim lu ko yóbbu Doha Qatar maître Madické Niang ci Vox Populi ne bis bi ma Karim Wade di sant ne ma mën ngaa wax mu wax ma ko ci biti wala ci biir nii ne ma leeralal sénégalais waaw kay bu boobaa nag laay feex ngir mën a wax waaye nii nii nii man wër na ko ndomba exclusif yéene kaay ne Benno Bokk Yaakaar day ne sef ba gañëwaat Médina ak Dakar du yomb de journal bi ne nu ah kay ak deuxième mandat wu Macky Cheikh baa ngi fi directeur général u impôt mooy capitaine bi nga xam ne day mi ngi ci xeex yëpp termine yéene kaay ne waaye Benno Bokk Yaakaar day wax waxitu Macky Sall bii mu wax ci ministère intérieur jamonoy Abdoulaye Wade waaw waa Benno Bokk Yaakaar day d'accord nañ ci évidence yéene ne waa kër gi xalaatul sax ñu leen di porter plainte déedéet waaye yegg na caat ak kilifa xeme xaw leen a rey terminé yéene waa ko seer bu Pikine day waaw nee nañu kilifa ak caat day wallaay ba ñu teg seen tànk ca Pikine googee matador ah. ne leen leen génnee la beneen morceau bu gën a tar ah. sur sa année alaaji Malick Gakou day waaw nekk ci aéroport Blaise Diagne bi keroog ba mu wàccee ca Air France dañ koo maar day taali ba nuppi nag di ko fuwe di wër ay bagage samak yooyee Wow, sentif ñi ngi tëg bët Kita lay de ñi ngi kilifa diine war wax tax ba Serigne <laughs> li ci yéene kaay yi ñu xëyandool tey ji àjjuma yenti fan ci weeru janvier atum 2019 Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ci àndal jërë ngeen jëf Khalifa Ababacar Sall ak bokkam ci wotey présidentielle yi 2019 yi mi ngi bëgg a taq suuf l'observateur nañu ripp sax ubbil yéenekaay bi meerub ndakaaru ba woon daanaka faxasu ci wotey présidentielle yi ndax moo ki mbokkam la demoon ca cour suprême doon ko fa démb amoon fa yaakaar cour suprême da leen a dumoyu démb ci alxames ji yamu woon ak ñetti fan ci weeru président Amadou Bal dafa rejeté li Khalifa Sall ki mbokkam doon ko daanoon ci gàttal cour suprême nee na Khalifa Ababacar Sall dafay des moom ak ñeneen ñi ñu ko jàppandooloon ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Dakar l'observateur teg ci wax ñu fa cour suprême jógi ba rejeté requête bu ñoom Khalifa Sall bi enquête dina nañu mu des nag léegi coowal candidature bu Khalifa Sall ci wotey 2019 yi maître Babacar Cissé bokk ci avocat état bu Sénégal ne ñu xët mu njëkk journal bi way wa daanu na ne ak dogal bi cour suprême joxe Khalifa Sall pare na ci présidentielle yi kenn ci avocat Khalifa Sall yi di maître Seydou Diagne ne ko ca wet ga wax nga lu la neex Khalifa yi doon candidat jàmm ak salaam duñu bàyyi ab rabat d'arrêt la ñuy def gaañoo ci rabat d'arrêt googee ci la xalifa Sall jafandoo mooy sànni tàccoom moo tax mu ngooy ci kataw liis ginnaaw ba Cour suprême dëggalee juróomi ati yu ñu ko daanoon mu def appel ñu tegaat ko ko la Sénégal mel ne ku naan ñu xaaf booye boo mu waaf bàyyi présidentielle yi 2019 yi mu jàll ndax mbir yi mi ngi gën di compliqué ci moom la tribune nañu bugan ge dani ma ngay ngagne ak jibané lañu ko def néna dañu ko compolo les éco nañu ci candidat yañu calé kale conseil constitutionnel amna fay candidat yo xamné def nañu fa lu weng Amna nañu fa way wudul gaaw fay ñu ci melné candidat Mamadou Lamine Diallo Amadou sek wala Abdou Wahab Ben Diallo ay champion la ci walu manquement matli wuñu dañoo cëkkale ki yap nit ñi nak les éco nañu moy candidat bi di Mamadou ndjay mom day tiaxan ndax 28433 433 signature le yóbbul conseil constitutionnel yeneeni candidat mudi Mamadou Diop Moustapha girassi yi ak Amsatou Sow Sidibé ak Moustapha Mbacké Diop ay fichier yu kenn mënul lijjanti la ñu joxe ca conseil constitutionnel direct info nañu ko wax lii wax la ca des ndax ci candidat yi am na ci ñoo xam ne ba ñu demee ca conseil constitutionnel dañ leen faa toroxal dañ leen faa tuutal joxuñu leen fa benn cër journal bi gis ne conseil constitutionnel dafa war a respecter candidat yi direct info dem ci sax ba dañuy wax directement ne conseil constitutionnel ak télé moo ko sonal boole cee kit dafa yabaate vox populi yàpp na Kylian bu xëy di waxtaan ci journal bi mu njëkk a wax mooy moom maître Madické Niang Niang risque bu rëy la jël ci li mu sampe am dëndam doon candidat ci présidentielle yi yi waaye xel xalaatul ku mën a liggéeyu Abdoulaye Wade bi nekk fii ci réew mi ay élection am ci réew mi te du ci bokk lu jëm ci mbiri Karim Wade maître ma dikkee ñaane bés bu taxawee ne ma naa wax bu boobaa ca la doom di neexee ndayam dinaa wax dinaa leeral ba waa réew mi xam lépp ñun ñëpp nañu dëpp daje ji ci l'observateur ba ci la Sénégal yi ca Mbuur benn waaye fa la yëfee xewee laas yéen a kaay nañu askano la ñu jàpp mooy sacrifice la